waaye nañu xam ni euh, jigéen lu yàlla euh, wormal la ba mu tax kenn du ko dóor ba mu tax kenn du ko saaga ba mu tax kenn du ko def lu ko metti ku toroxal jigéen yàlla toroxal la mu doon loo xamante ni lu spécial la mm-hmm. mais yow itam nga composé ko à cœur ndax mënoon na ñëw indi titre am indi ay parole ak ak ñoom seen mm-hmm. nga tegal ko fi lu la saf waaye da ko tegal loo xam ne bi ko sénégal yi dégloo kontaan nañu benn par benn naka nga defaree li nga xam ne moom moo di Moussa Dieyla bi waaw comme niñ ko gisee rek donc artiste bu ñëw tamit boo ma indilee benn way boo ñëwee ma xam ne li ci lii nga bëgg a way dinaa xool euh, lii ngay def nii ban rythme la àndal ak nan lañu mën def donc morceau Dieyla bi à la dafa amoon ñaari partie dama bëgg dañu bëggoon parce que Yaas dafa ñëw gis ma benn morceau boo xam ne day am day mélodique mais à la fin day day rythmique. waaw donc boo seetloo dama def automation ci biir morceau bi. morceau bi day daw ba mu yàgg mu mel ne lu gën a gaaw. comprendre nga. li coow li bari bari. voilà partie boobu foofu la affaire bi ne. day mel ni accélère maa ko noonu. donc day daw ba mu yàgg. mu accéléré boppam. ok loolu la wax automation ci musique. Ah, kon morceau bi nii la doon def bi nii xoolal maman morceau bi nii la doon def di yéex di yéex nii mu yàgg mu accéléré. <laughs> voilà. noonu la morceau bi def alors c'était pour vous montrer vas-y. xam nga musique lépp ci temps la. wallaay ndeysaan parce que temps mooy créer musique tey jii nii. Euh, pour man lu gën a li ma découvrir sama sama dund mooy beat making. beat making mooy ma dem ba xam ne man kese orchestre la man kese mën naa jouer batterie jouer basse jouer sabar jouer def tama bi def. lépp instruments yi musique bi soxla yëpp te ku koy déglu bu koy déglu ku ku ku ne kii lii benn nit kese ko defar du ko gëm. du ko gëm day jàpp ne orchestre mu taxaw si ginnaaw ji tëgg. dégg ngeen loolu donc loolu moo gën a extraordinaire ci man li ma découvrir sama live et puis euh, ma passe ci temps bu mag di ko jàng. ba tey ji su ma koy def ñaata la am morceau bi pour mu pour ngeen enregistrer. morceau bi déjà bon ñoom bu ñu ñëwee rek def voix rek loolu ay quelques heures la. waaw léegi man maa ci war a nekk defar musique bi. musique bi passé naa ci deux jours ko mixage bi moom. Sénégal laa commencé ba Dubaï. yëg naa ci avion sax ñëpp toog centre ci leneen ma génne sama ordinateur tax samay kas di mixé son bii nii. dégg ngeen loolu bi muy génn bi son bi di génn man maa ngi Dubaï. lépp lépp def na ñaata. lépp lépp def na ay une semaine. une semaine une semaine ci benn son. une semaine la toog def ko réaliser ko ba mu tax titre bi ku ko gis kontaan ku ko gis bëgg ko. mu doon titre bu doy waar dañuy ñëw way dem. Mhm. mais yow euh, compositeur bi yow euh, ki nga xam ne yaa war a ba mu neex yow yaa am liggéey. Mhm. man damay wax chaque jour euh, course bi nekkul ñun ak ñun. nekkul man ak kii ak kee mais ñun la ak international bi. dëgg la ñun la ak nigériens yi. ñun la ak tanzaniens yi ñun la ak maliens yi donc dañu war a indi lu am qualité loo xam te ne tey mën na concurrencer musique yooyu noonu. Hmm. quoi man ci foofu la focaliser wu. ba nga xamante ne tey su may liggéey benn liggéey. damay jàpp ne damay liggéey pour Sénégal. je travaille pas pour jiba ou bien pour euh, Dieyla mais je travaille pour la musique macha allah ba tey jii nii bon. Euh, la preuve am na yu jógee ay Gambie ak ay Mauritanie di ñëw di ma seet si ma leen kontaan ci titre boobu noonu nga xamante ni présentel nga nu ko ci euh, Jeyla mm-hmm. mais dafa am beneen boo xam ne dafa spécial titre Jeyla bi toll na ci 6,5 millions de vues sur YouTube mm-hmm. en un espace de 4 mois donc félicitations à vous mais l'autre titre qui est en train de ravager qui est en train de de vraiment faire le buzz un peu partout dans le monde c'est le titre de Djiba la mu saf naka ko macc rek ko xam niki ki ko macc ngi nii toog <laughs> ki ko macc nag Grégoire laa bëgg nga wan ma naka la composé lamu mu saf bu gré euh, bu jiba si c'est bon c'est reparti let's go <laughs> il a le talent marimba bi ngeen di dégg guitare gi ngeen di dégg sabar si ngeen di dégg lépp c'est ce grand monsieur il est à applaudir vraiment merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, pour ce que tu fais pour la jeunesse sénégalaise mais également pour les artistes d'aujourd'hui les Djiba les Bass Thioung bu bas bi nag indil nu ko waaw non day ñëw waaw mais indil ñu bu ji bu jëy naa bi mais indil ñu ko xoolal benn par benn indil ñu ko ñu koy use parce que nag liggéey def nii mm, mm, mm. c'est pas donné à n'importe qui tu es chanteur moo tax ma ne la yow barigo ci mbartal nga puus mu dem puusul mu dem ñu bëgg ak ñu bañ sa titre yi ngay def day daw ci télé yëpp nag amul ku koy tere parce que artistes yii la nit ñi bëgg kon nag macha allah laf cat yàlla na yàlla defal la jàmm on va euh, euh, naka nga composé titre Djiba bi nga xamante ne aussi def na buzz waaw comme d'habitude ah, xam nga jibaa moom presque man ak moom dañu compatible. Ah. yàlla moo def ne saa bu ñëwee si man rek euh, li ma koy defal ñëpp dañ koy bëgg. ndeysaan parce que euh, damay damay damay yëg fu muy waye donc day way rek bi mu njëkkee way nee na ma mais son bi est-ce que duñ ci def euh, bongo. te comme man dama nekk nit boo xamante ne. da ngay loo mu wax rek dem lañ dem ci loolu. da ngay tey musique moo toll foo xamante ne instrument yëpp muy bongo muy kora muy xalam man loo mënti wax rek. dama am ay séquences yoo xam mun naa ko ci jouer ah. sama ak sama clavier mun naa defar mun bongo mun naa la defal clavier mun naa la defal kora lépp loo bëgg ci clavier bi ci clavier bi laa ilaha illallah tu comprends donc on a essayé donc euh, teg benn dinaa ñëw def ak yow émission nag boo xam ni il faut vraiment il faut c'est très important waaye loolu dinaa ko def vidéo yi sax dinaa ko def man maa koy def nit ñi gis maa koy njëkk a def yi dégg Bril on the beat wala Bril moo composition ko ay tam li li gën a lan mooy ñun dañu am loo xam te ne suñu yëf la dañ judd fekk ko fi muy suñu musique muy suñu culture tant que ñoo ngi basé wu ci loolu mën nañu yóbbu suñu musique fépp fu ñu neex mais xam nga kañ lañ mën ta lan moo gën a sonal musique sénégalaise mooy sénégalais dafa jàpp foog ne américain la wala tubaab la euh, benn affaire tant san son ne pas américain wala français wala benn dëkk rek ñuy jàpp ne lii baaxul alors que ñun suñu yëfu bopp liñ fi am muy ndëj waaw lëmbal dagat dagat eh, si sama gi ñu yitteewulewul sama lëmbal gi te man xam naa lëmbal ni mu mel. mais c'est que tur bi la mais gi ngeen <laughs> koo yàq bëgg koo dugal foo xam ne amut. man man loolu du ma ci wax lëmbal gi di ngeen xam ne lëmbal national la merci bi nga ko waxee. yàgg na doon na ko wax ah. en fait l'homme africain mu mu complexe tout mais. binaire binaire. mooy mooy dagaj. waaw binaire mooy ndëj boog ndëj. ndëj waaw ñun olof ndëj la ñuy wax rythme ndëj loolu loolu mooy binaire. ci français li ñuy wax lëmbal loolu mooy ternaire. ternaire cest à dañu war a jël suñu yëfu bopp man depuis que j'ai compris cela mooy sénégalais li ñu leen defal immédiatement rek ñu sentir ko c'est parce que lool fii la jógee. xanaa xamoo sama meilleur ami guddi yu ñu toll Awa Banaya ak Ndeye Ndiaye Banaya la ñoom laa gën a bëgg. man dem man damay. jàppale loolu loolu laay jël def ko jibaa ñëw way way ci. ma fexe ma ma concentré wu après nag ci musique bi parce que musique jiba bi sax euh, la Moustapha mën naa ne ci mix bi laa gën a sonn ko jëy laa d'accord comprendre nga doon naa ko sax ma koy liggéey mais peut-être que nit ñi moo tax daan doon naa ko statut Instagram ci WhatsApp naan li may defaral jiba bu bu paree comprendre nga fekk boobu maa ngi tout le temps damay yeewu mën naa ci yendu dem tëddi ñaata ma yeewoo moom jël na ma ay presque deux semaines de parce que ah? dem nañ ba ma koy laaj ñoom ñoom dem nañ ba may woo di ma laaj son ma leen est-ce que comprendre nga pour bëgguma génn mais bon boobu maa ngi doon concentré pour xool parce que bëgguma Djiba mooy artiste boo xam ne marqué carrière am un artiste international qu'on le veuille ou dañ koy déglu partout dans le monde su wóoloo Bril ba jox ko musique am donc Bril war na xam ne loolu sas la sas bu diis la donc sas boobu dafa diis ci man ba su may liggéey damay naan il faut que lii nekk it bu amee benn affaire bu nar a faay sax dama koy woo na ko booy jaaratal laay liggéeyee quoi donc man nekk ci nekk ci nekk ci liggéey di mixé mu xam ba mu leer ma ni baax na moo tax su ma ko joxee sax moom dafa ma koy wax si naan Bril yow rek yaa artiste boo xam te ne da nga may jox sama musique du ma la waat naan la dañuy rectifier da nga may jox rek ma validé. ndeysaan donc dama koy jox mu validé ñu def clip. Bravo et merci encore une fois au nom de tous les artistes du Sénégal je te remercie Bril pour tout ce que tu fais pour les artistes parce que ñun mhm. euh, en tan qu'animateur en tant que tay porteur de voix euh, notre fierté c'est de voir les artistes sénégalais euh, euh, euh, euh mettre le flambeau au devant de la scène africaine mhm. au devant de la scène mondiale donc yaa ngi ciy liggéey si yaa ngi ciy bay sawar kon yàlla na la yàlla defal jàmm sénégalais yeeg artistes yëpp gërëm nañu la ndaxte musique yi changé na mélodie yi changé na mhm. musique léegi da koy déglu gis ko ci yeneen yeneen mélodie donc lépp grâce à toi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax pour artistes yi bëgg mën a gën a dem ci moom euh, euh, c'est vrai que ni nag dina xaw a tàng <laughs> ndax nag du ne de <laughs> li muy defal gars yi nii ah, ah c'est des millions je vous parle bien ay millions nga koy fay pour mu def ko parce que nag ku bëgg lu baax nag da ñëw euh, wala boo tolloo ci niveau bi nga bëgg toll ñoom Bastung ñoom Jiba ñoom Jeyla ñoom Jeyna et autres nga ñëw mu defaral la li mu def ba ci boppam moom li muy defal boppam yow di nga fayook sa bopp war may fekk parce que temps temps booy temps moo gën a cher xaalis. wallaay temps moo gën a cher disons que et temps sur moi-même donc loolu fay la quoi. en tout cas kontaan nañu merci d'être venu. noo mujjee waa fële seen affaire yooyu noonu ñooñu. waaw mais loolu moo ngi ci yoon ba léegi <laughs> <laughs> mais xam grand bi dafa xaw a nay quoi moo affaire bi yéex. <laughs> Ah, waaw waaw la jox sax yow ñaanami loola. xam naa dina xëy woon non yaa nañ la jox say million nga géré réew mi am jàmm waaw parce que grand bi léegi mu woo ma waaw ah, mais quand même quand jël sa bit ba pare jël sa yëf <laughs> soo jëlee yëf jàmm doo ko joxe <laughs> ay dañuy ñi ngi leen di kontaane am bu waaw merci d'être venu ñu gërëm la bàyyi la yow itam nga nuyonte ay eh, tàggook téléspectateurs yi ñoom ñëpp kontaan nañu actuellement ñu bëri ñu ngi may message naan nu euh, euh, euh, d'habitude li ma gën a neex mooy damay dégg Bril 5 mais pour man Bril day way ci way wi composé gis nga. ndeysaan xale yu bëree xamuñu woon loolu. c'est vrai gars yi dañuy dégg du ñu xam donc lii c'est très important. parce que gars ko feeñal. man c'est c'est la première fois que ça passe la télé. macha que yow aussi da ngay bu important ci loolu. Uh-huh. mooy euh, gis nga euh, des fois togg day ñor. ñu fàtte que nekk ci waañ ba. mais yow à chaque fois je vois que ni même bu ma fi nekkulee son boo teg mu nekk bril que ça soit jëy naa dara xewul wala Abdou Guité Seck wala Bastoum da nga naan Bril moo def son bi moo def. non mais c'est comme comme ça booy dañ koy dagg li ma ko yónnee dañu maanaam kii voilà un vrai animateur. parce que day di wane li nga xamante ne ñun mënuñu ko wane. dëgg la donc et là ma ma si ciy remercier bu baax. Mm. di ci kontaan di la wax ne ñun soxla nañ ñu mel ne yéen. merci c'est que très content merci vous. merci ma bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi man itam ma lem samay dëbës merci beaucoup maa ngi leen nuyu bu baax di leen euh, di kontaan ci émission bi ci invitation bi parce que y a beaucoup d'artistes ngeen invité Bril donc ça fait un très grand plaisir di tamit remercier samay fans yi nga xam ne depuis tout a commencé quand nos regards se sont croisés. ba tey <laughs> loolu ngi ci jàpp waaw ñu ngi ci jàpp ba tey bàyyi ñu muy waa number one bril chaque jour ñoo ngi ci groupe bi di di waxtaan di teg ay stratégie nekk ci affaire bril simplement maa ngi leen remercier bu baax a baax ak fépp fël mën ci nekk ci Sénégal si sama xol laa leen def yéen ñëpp di remercier fi ma dëkk waa caaro Caaroy waa jàmm gën di ñaanal aussi tamit euh, di leen ñaanal di wax waa état bi ngir yàlla nañ leen gestu suñu tëli tëli bi jógee jàmm gën dem Caaroy kenn mëntu fa jaar nañ jàppale defaral ñu ko defaral ñu ay canal ay ta jàngeen jëfati loolu la ñëpp di jooy loolu la ñëpp di wax guddi yi ñu toll moo tax ma indeele parapluie eh, te du ma bàyyi parapluie bi chaque jour ak couleur ba may indi wala bu fekkee ni bii laay indi sax naa ko indi eh, di ko wan sénégalais yi ñu xam ne ñu ngi ci mën mi te metti na il faut qu'on en parle nous qui sommes au devant de la scène pour nit yi mën cee jot ndax message la eh, amaana sama wax jii ma nga dem ba biir palais donc la may wax dama koy wax te yàlla rek tax nañu dimbali néew di doole mhm. nañu leen gëstu nañu leen xool nañu leen sàmm ndaxte nit ñi sonn nañu ci ndox mi nañu teel a jóg ci euh, mbedd yeeg koñ yeeg tali yi defaraat ko kon jërë ngeen jëf merci beaucoup à vous amis chers téléspectateurs même sans appel je me sens aujourd'hui bien à l'aise euh, euh, Grégoire xaw ma lan la nag tey mais moom dafa dóob daal kontaan naa ci yéen merci beaucoup et rendez-vous demain quant à moi je vous donne rendez-vous demain kon et passez un excellent ceebu jën un excellent poulet rôti Mister Grégoire ciao